moo tax moom mi la dugaloon ci nguur et cetera est-ce que yéen a ngi déggante wala est-ce que yaa ngi koy seeti. Ablaye Wade déggante wu ñu seeti wu ma ko mais Ablaye Wade li ma gën a bëgg ci àdduna. Mhm. mooy ab Ablaye Wade mooy PDS. ak moom ak jabaram ak doomam ñoom laa gën a bëgg xaw ma solo ma ñeneen bañ naa ko ba quatre vingt dix pour cent jëm quatre vingt dix pour cent ñi ma am ak ñi may àndal yépp mooy ñi ma xamoon ci biir PDS mais malheureusement doom ji moom a dàq ci biir PDS comme ni mu ci dàqee ñoom Pape Diop ñoom ma Madické ñoom Omar Sarr ak ñoom ñëpp donc jàpp naa ne awma problème ak Abdoulaye Wade mais comme Abdoulaye Wade nag moom doom ji rek moom la gis bëgg-bëggam mais quand même mën a jóg dem ci Abdoulaye Wade di ko seeti wala may taxaw ci buntu këram ah naan ko damaa bëgg recevoir d'ailleurs mbub def na ko ba tàyyi dem na taxaw faan yuuxu na ci rajo yi amuñu sax xolu yërmbaane ne mbuub mi ak fi mu jaar ak Abdoulaye Wade nga xam ne ku daan dugg biir néeg Abdoulaye Wade ku daan dugg biir bureau Abdoulaye Wade da ci mbuub ngay jaar mbuub lay mbuub lay dugal muy guddi ak bëccëg amuñu yërmaane sax ci mbuub moomu mais mënuñu am yërmaane ci keneen donc je me suis dit que jaruñu vraiment di daw leen topp yàlla jeexul yàlla jeexul waaw yàlla moom li mu yore du jeex Abdoulaye Wade li mu yor nag doom ji mën nañu ko tëj mën nañu mën na ko téye waaye na ko téye ñun tam ñu am suñu dignité wuti yàlla man jéem ma ko seet jéem ma wax ak moom parce que comme ñun euh, li nga xam ne moom la ñuy wax magu Tuubaa yi waxoon rek magu Tuubaa bi nga xamee ne euh, man demoon naa ki dëju yaayu Aïda euh, Aïdara Sylla bi soxna si nelawee ay kilifa yu bari ñu ay chef de village lañu ñu ay ay daara la ñu yore ñoom ñëpp dañu wax li ñu gën a li leen li ñu gën a metti mooy li nga xam ne président la dafa nekk bitim réew fekk këram gannaawam ñu jàppante ba ñu génne ñoo xam ne ñëpp jàpp nañ ne ay doomam lañu Abdoulaye Wade ñëw rek daal di téye gémmiñam waxu ci jéemu leen a woo waaye faroon mu woo leen ngeen ñëw ngeen toog mu waslu ci àq su ngeen bañee ñëw sax sénégalais yi xam ne Abdoulaye Wade def na li mu waroon def Abdoulaye Wade ñëw jàpp njaamuram parce que li ñu def naqari na doomam loolu lañ jàpp ne du yoon te loolu moo tax man duma jóg mukk dem di ko seeti ni gor nag moom gor rek la mun doon waaw te moom moo ñuy dàq waaye ñun su fekkoon ne ñun la rek billaahi wallaahi taalaahi du ñu génn mukk PDS ndax am mënuñu am lu ñu gënal PDS mënuñu am lépp PDS mais nag yàlla moom ay mbiram dafa yaatu nañ ko topp rek. Mm-hmm. jubboog baa ji nag day xaw a jafe ndax yow doo may dara Karim Wade. demoon nañ bay ruumandaat affaire si waaye yaa génn ne ah bu Macky la bëggee daanu daal na may Karim si loolu tamit <laughs> ci doom day métti. mais waxoon naa mbuub ne ko gaa ñi bëgguñu ñu gaa ñi ma ne ko mbuub gaa ñi bëgguñu ñu mu ne mu tax gaa ñi bëgguñu ñu ma ne gis nga gaa ñi heure boo xoosee Karim rek ñu jóg ne wala wala sa baay la wala sa nii la ñun bi ñu dàqee. gaa yi na dem na dem. ñii xamoon nañ ne dañ leen dàq ñii xamoon nañ ne dinañ walaakaana ñii ñoo ko def dootuñu tekki dara. kon kay nañ ñu bàyyi au moins ñun tam ñu mën a xeex suñu dëj ñu mën ko jooy ñun suñu dëj la ñuy jooy donc bu kenn waruñoo ñoo xarab parce que dañuy wax Karim loo xam ne du ko neex bu buñ ko kenn xarabee parce que bañ nekk ci coono nekk ci difficulté kenn fekkuñ ci lu ma yàlla rek mooñ ci fekk man dégguma mukk kenn ku jóg ne Ablaye di yërëmal ñii Ablaye Wade ñii sa ay doom lañu dañuy wax ne na dem rek dàq leen ñu dem kon ña ko doon wax nag tey ñoom seen bopp nañ bàyyi ñun tam nag ñu ñu ñu ñu wax lu ñu neex ma jàpp naa ne Karim dootu nekk ci Sénégal dara tant que ñu ngi ci biti parce que ñun su su àq moo nekk ci PDS man dem naa ci comment deux fois deux fois Ablaye Wade dem na difficulté trois fois yoo xam ne man ak moom ak yàlla rek mu ne ma far ba taxaw gi su dul yow su dul yow ñàkk naa sama honneur wala ñàkk naa réew mi ma jóg man ma taxaw si te kooku suñ ci biir la defal na ma lu bëri nag mais àq boobu Karim du ko mën a jël mukk mu jël ko mu lekk suñu àq mu am mu am bànneex eh, ci biir parti bi ñun ñu ñu am nekk ci biti di taxawal. Farba ci biti Karim ci biti. incha allah. ok mais aussi nga bokk ci camp présidentiel bi fare foofu euh, camp bi fu mu toll nii jax na de ca APR seen seen camp boobu tamante dëmm bi Moustapha Cissé Lo fii Moustapha Diakhaté fële Yakham Mbaye fële. loolu it moom daanaka ci fàttali PDS noonu la commencé woon bala muy bala muy ñàkk nguur gi ah man jàpp naa ne mhm. ñoo war a ñuy tirer ay enseignement mhm. parce que doomu aadama lu mu wuteeg bàyyi ma yi mooy xalaat parce que soo gisee PDS demoon ba ñuy xeex di ŋaayoo kenn ku nekk di xëccoo mhm. euh, jàppal fii Macky jàppal fii Abdoulaye Wade jàppal fii Massamba jàppal fii Mademba ba parti bi tas ba Macky ñëw jël affaire bi ba nekk ci président de la mais war nañu xam ne ñoom ñooñu nga xam ne ñoo téye woon jàppale woon Macky comme ñoom ni ñu koy waxee 2007 mu ñoom Moustapha Cissé Lo ñoom Moustapha jaxate wala ñoom mbay njaay wala ñoom Abdourahmane Ndiaye wala ñeneen fa ñu taxawoon ba ba am mën a am bunt ba ba nga xam ne dañuy ba indi Macky Sall mu nekk président de la République mais suñu moytuwul dañu ubbi bunt pour ñeneen ñu jaar fa ëllëg ba mën a jël nguur gi te loolu dañ ko war a dañ ko war moytu parce que ñoom wutuñu nguur am nañu nguur a pare parce que man li ma ci gis sax mel ni ñoom xamuñu ne ñoom ñoo yore nguur gi te nguur gi ñoom ñoo ko yore nguur soo ko yoree da nga koy sàmm dafa mel ni nga yore sa xale bu ndaw wala nga yore sa alal wala nga yore sa doom da nga ko war a sàmm ñoom noonu lañu war a sàmmee nguur gi nguur gi seen nguur gi la seen nguur la parce que nguur gi ku xeexul ba gañe ko doo mën a am nguur mais da ko war a am ba pare nag wañeeku teg fële nag di duggi marché nag dem ba dugg sa marché ba nga xam ne dem togg ki des nga daal koy taaj sa leket ca mbedd ma ngay xeex keneen wala yéen ngeen di seen biir mais keneen mën na ñëw fel ko donc nañu moytu loolu man jàpp naa ne ñoom li ñuy woote par exemple ñoom Moustapha Lo ak ak Moustapha Diakhaté mais dëgg la ne ñoom ñoo doon jàppale président Macky loolu kenn mënu ko weddi mais loolu tam war na jur frustration. waaw ah, parce que yéen peut-être transhumance yi aussi nee nañ moo jur coow li ñoom loolu leen frustré. en partie aussi. noo gëw ma ne transhumance yi am nañ si ñu ñuy coow man de ñi ma xam man vraiment. Mhm. ci ñoo xam ne àndoon nañoo ñoom euh, peut-être que ñoom euh, Fada ñoo ci am ak euh, Fada ak kan. Awa Ndiaye Souleymane Ndéné Ndiaye. voilà mais gis nga nit ñi nit ñi sooy ànd ak ñoom itam te compaloo leen dara su yàggee da ngay wéet parce que Abdoulaye Wade noonu na pouvoir dañ koy partager loolu moo taxoon ñun bi ñu ñëwee en deux mille au pouvoir def ñu dagal ñun ñëpp ñëw mu ne man de man xam naa ne man sama man sama bopp su ma génnee ñi ma jàppale yëpp. man mënumaa am trente pour cent. ah ku compal pàccoo de. dégg nga mu te nguur moom kenn du ko pàccoo wax dëgg yàlla mënumaa am mënumaa am 30 pour cent donc il faut que ñi nekkoon PS xam système bi te nga xam ne tam xam nañ nekk nañ ay politiciens fu ma jaar ma jëli leen su ma leen jëlee ñëw ñu ànd ak ma jàppale ma suñ nguur mën a dëgër moo tax bi ñu demee 2007 affaire bi yomboon na mais ñoom suñu yaakaaree ne léegi léegi dañu bëggu ah ñoom rek ñu ware ko. lu loolu loolu du sotti et nguur ñi koy taxawal toujours mais du ñoom ñoo yore nguur ga ba mu jeex tàkk ñu Macky tey la gañe woon 2012 ñu ngi ci deux mille 2019 juróom-ñaari at waaye xanaa juróom-ñaari at sax am na ñoo xam ne war nañ war a dem retraite xanaa am na si ñoo xam ne sax ñoom war nañu war nañ leen a mën a changer gis nga pouvoir comme génération la ni ni génération yi tegalante noonu la pouvoir bi ci seen biir ay génération yi war a tegalante kon ñoom dañu war a ubbi ko parce que gàtt xel la nga yaakaar ne yëpp yaa ko yaa ko war a jël hmm. mais je crois que frustration bi ñoom am ñu bëri dañ yaakaar ne par exemple ren du ñu toog di waxtaan ah suñ bëggee gis président duñ ko gis tous les jours ah suñu bëggee wax xam duñ ko wax moom mais loolu c'est superflu parce que ku mel ni Moustapha Cissé Lo président de la CEDEAO yaa raw président de la République hmm. du parlement de la CEDEAO parlement de la CEDEAO hmm. parlement de la CEDEAO yow yaa raw président de la loo xam ne président président ko mën yow am nga doole yoo xam ne ci Afrique nga xam nga fa loo xam ne président amu ko mais loolu bul yaakaar ne loolu du dara loolu lu rëy la saa nañu bàyyi rek teg seen post yi teg seen bopp xel yi rek ci président président daal bi président benn lay doon mais mais benn lay doon mais li wër président am na doole yoo xam ne ñoom suñ ko xamee du jaar sax ñoom ñuy xuloo di xeex balaa li ma leen laaj mooy war nañu fexe ba ñu ànd ñoom nekk benn présidente war leen woo waxtaan ak ñoom delloo seen xel. mais ñoom itam war nañ indi seen xel parce que xeexoo bi ak ŋaayoo bi amul benn njëriñ te ñoom ñoo yor pouvoir bi kenn ku nekk war nga mën a régler la ngay régler mais def ko ci sutura mais coow li moom defe naa ne ñëpp lay yàqal. dana yàqal président waaye ñoom te leen yàqal. donc man li may wax mooy ñëw dañu war a ànd ñoom ñu nekk benn. dañu war a suñ mënta nekk benn am yoo xam ne dañ ci dëgg seen tànk teg ko ci mais vraiment am na yoo xam ne day yàqal nguur. Mhm. ci compal bi nga wax doolu ma ñëw ci parce que aussi yaa Yakham Mbaye dafa def ay révélation yu graaw jëmale ko ci Moustapha Cissé Lo ci mbirum semence mu ne ko jot nga quatre mille cinq cent trente une tonnes de semence et d'engrais ne nu mu ko amee ay chantage laat ak euh, ay menaces donc euh, moom loolu yéemewul loolu jarul procureur ubbi enquête nga foofu xam nga loolu ah, bàyyi leen procureur xam mënul lu ñu wax ci mbedd yi rek mu ubbi enquête. ah lii kat daa xam nga procureur manut lu ñu wax ci mbedd yi procureur ubbi enquête. avec document à l'appui am yu bëri yoo xam ne ay ay wax la rek waaye dama ne la xuloo ak coow dafa baaxul. gis nga xuloo ba ñuy xuloo ca mbedd yi. ba ñuy xuloo ci euh, pidi bi wala ba ñuy xuloo ci marché bi ak xuloo ñoom bu ñuy xuloo ñoo yem. parce que da weer sa bopp kenn ku nekk day jéem wax sa morom lu ko naqari. di sulli ay mbut ah, mën nañ créer sax loo xam ne sax amut te te loolu. yaa xam moom ay document la génn. loolu loolu de loolu de yàq pouvoir moo tax ñu war a arrêté ñoom ci biir. Mm-hmm. xuloo bi ak xiiroo bi ak ŋaayoo bi. Mm-hmm. parce que danañ dem ba mën nañ génne loo xam ne. Mm-hmm. alors ñoom daf leen di yàqal ñoom sax duñ ko bugg a dégg. wala nga dem ba wax loo xam ne ëllëg danga nga koy riccu moo tax wax ci mbedd ak wax xasante ci rajo yi ñu yore nguur vraiment waruñu ko def war nañ wax na yow liggéeyoo lii defal lii defal lële waaye di génne ay yaa def lii yaa def lële mais kooku waru ci kenn mm-hmm. parce que loolu c'est excessif mm-hmm. waaye aussi seen nguur gi tamit euh,